ci ndaw ñi ah góor la dégg nga nee sa papa <laughs> ah kon sa doomi maam sa lan la sa nijaay la loolu nag ñu baree bari kon noonu mbokk mi ni mu ko déggee noonu ñu baree bari leneen lañ lay wax sax lu gën a sori loolu ki nga xam ne xamoo lu ngeen bokk xam nga ne rek kii sama mbokk la ñu wala ñu jox ko sax autour ñu sama cousin la wala sama jegeñaale la wala yu mel noonu kooku jokkoo bokk gi war a dox sa diggante ak moom day des boo gisee mag ñi jëkk ci daan sonn ci wet yooyu gone gi bu tàmbalee di xàmmee ku mu bokkal dara ku nekk danañ fexe ba xam ne kii nangam la ci moom diw sangam sa bàjjen la diw mooy sa doomi bàjjen diw mooy doo sa doomu nijaay diw nangam sa maam ak maamam ñoo bokk dem nañ ba bokk yu sori yi sax dañ ko daan xam xam yi mu leer nañ su ko defee boo jógee jëm kër diw danga xam ne sama kër nangam laa jëm waaye da ngay jóg di dem ñu la foo jëm nga ne rek sama kër sama sama mbokk la daal mais nag xaw ma lu mbokk xam naa daal mbokku paabi la su ko defee bokk gi ni nga ko war a doxee dëgg-dëgg doo ko doon kon xale yi faw ñu jàngal leen itam seen bokk yi seen jegeñaale yi ak ñi nga xam ne seen askan lañ nan lañuy jokkoo ak ñoom ak bokk Abubakar Siddiq daf daan wax ne jàng leen jàng leen ci ci seenu askan loo xam ne da ngeen ci mën a jokk seenu bokk parce que boo xamut lu ngeen bokk doo mën a jokk sa bokk sa digganteeg moom jàngal ko itam laa biir ak nangoo sonn ci keneen nangoo jóg di def effort ci yitte boo xam ne yitte keneen la loolu lépp ay jikko yu rafet la yoo xam ne dañ ko war a jëmbat ci xale bi fexe ba jëmbat ci ñoom itam ah, jikko yi nit ñu baax ñi nga xam ne ñoo fi jaaroon muy asalafu saalih niñ meloon ci wàllu njàmbaar niñ meloon ci wàllu nangoo joxe seen alal niñ meloon ci nangoo joxe sax même seen bakkan niñ meloon ci fulla niñ meloon ci bëgg lu baax ak bañ lu bon di leen jàngal ci seenu dund nañ meloon di ko nett li ñuy dégg kooku lu am njëriñ ci jëmbat xale bi la ak fexe ba sax doon koo xam ne bu ñuy xalaat ci jàmbaar ca nit ñu baax ña la koy xalaat waaye su fekkee ne feesaloo xelam ak jàmbaar yu mel noonu bañ fees dell dell bëgg-bëggam day jël yeneen i jàmbaar ci leneen fas yéene bëgg mel ni ñoom leneen lu ñu tudde jàmbaar da gis ñoo xam ne ngir ne gisaguñ wanaguñ leen jenn jàmbaar mosuñu koo dégg dañuy xool ci match bi football bi bu ñu xoolee gis ne ah kii kat moom mooy jàmbaar ji moo def nangam moo dugal nangami bii ñu ne kooku mooy jàmbaar kon kooku mooy ki fës ci kanamam bu ëllëgee soo ko woowoon di ko laaj noo bëgg a mel bu ëllëgee da lay wax ne damaa bëgg a mel ne diw sàngam buy sol ab tiset bu muy sol sax day tànn boobu diw sàngam sol ko parce que kooku mooy jàmbaar fi moom xamul keneen su fekkoon ne nag mag ñu baax ña fi nekkoon jàngal nga ko seenu dund bis bu nekk nga jël ab téere toog ci kanamam wala ab kaset boo xam day jàngale dundub diw sàngam ñu nettali ko nettali bu yem boo xam ne gone da koy mën a dégg doo ko xóotal diw sàngam moo jaaroon fii moo def nangam moo def nangam ak njàmbaar goo xam ne bu àggee ñëpp dañ koy bëgg kooku boo la boo laajee jàmbaar mooy kan kooku dana ne la Omar ibn al-Khattab boo laajee mayekat ba mooy kan dana ne diw sàngam ki ëppoon fulla ci saaba yi dana ne diw sàngam su ko defee yooyu bu feesee dal ci xelum gone gi moo koy jubbanti mu nekk nit koo xam ne ku jub lay doon jàmbaar ci kanamam itam ay jàmbaar dëgg-dëgg la ñuy doon waaye duñ doon nit ñoo xam ne euh, ay fokkat la ñuy doon wala na doon ay tëggkat ak fecckat fu dara nekkul nag lu fa jëkk ñëw rek loolaa fa nekk loolu moo koy waral su ko defee gannaaw boo xamee ne fexe nga ba jëmbat ci ñoom jikko yu rafet yooyu fexe it ba bañ loo leen fexe ba bañ loo leen jikko yi nga xam ne yu bon lañ tajnibuhum al axlaaq arradila wa taqbixuha fi nufusihim gone gi war nañu fexe ba mu bañ fen mu yëg ne fen ak ñàkk solo la ak suufe la ak doyadi la ak ragal la sax ku nëbëx ragal mooy wax lu amul fexe ba yu mel noonu ñu def ko ci xelu gone gi ba tax mu wattandik lu mel noonu war nag taxul ñuy wax ki fexe ba bañ loo ko ko fexe ba du ragal fexe ba du doon koo xam ne bopp sa bopp looy yëngu loolu rek ci sa bopp nga nekk waaye doo yëngu di defal keneen leneen ak bëpp jikko boo xam ne bu suufee la kooku nañ teel a jëmbat xale bi ci mu yëg ni jikko bi ko sàngam baaxut bi ko sàngam baaxut yooyu nag day dëkk ci noppam ñi di ko ko wax di ko ci dundub ñu baax ñi luy wane loolu boole ko it ak di ko dund nag ci kanamam bu di ko xam bu di ko gis ndax ay waajuram moom lu mu mën a jàng ak lu ñu ko mën a nettali ñaari waajur yi ñooy royukaay bi bokk na ci it yar leen taalimuhum al umur al mustahsana charan yi nga xam ne sharia dafa bëgg nit ki fonk ko di ko def ñu fexe ba yar ko ci mu mel noonu loolu dana tax mu amug yëg dana tax lu ma war a bàyyi xel lu ne mu bàyyi ko xel lu mel ne su nit tislee fi moom wax alhamdulilah nañ ko teel a jàngal yarhamukallah ne ko moom nga ko war a wax na teel a xam loolu na teel a yëg ne bu dee bélbéli lenn ci yéen di ko wax wóbb li day jël gémmiñam ub ko ak loxoom bañ ko def noonu ci biir nit ñi loolu ci teggini lislaam la bokk nañ ko teel a jàngal ne nit ki ci loxo ndeyjooram lay lekk nañ ko teel a jàngal yaram léeg-léeg nga gis mag ñi nga xam ne jàngaluñ leen yu mel noonu dañuy def yu doy doy waar dem ba màggaale ko léeg-léeg nga gis koo xam ne ci biir sàppe nekk di julli léeg-léeg day téen rek di tisli tisli yu méttee métti ba nga xam ne ñi ko wër dañuy dem ba sonn ànd ak ne tisli moom daa nit ki mënu koo téye waaye moom mënoon naa jël ay loxoom teg ko ci kanamam wala mu jël musuwaar teg ko ci kanamam ci biir tisli yi ba lay naawee ci ay bakkanam ak gémmiñam du naaw di dem ci nit ñi kooku yar moo ko indi léeg-léeg nga gis koo xam ne ci biir julli lay nekk day li ba téen nga dégg sax ah léeg-léeg ci biir ci biir julli ji kooku day fekk ne xale bi yar gañ ko waroon a yar bi mu nekkee ndaw ci mel noonu leen lu ne mu xam nañ ko war a def dañ koo neenaloon ba mu màggaale loolu kon lekke nday joor buy faj aajoom ca wana wa nan la ko war a defee teggiin yi mu war a def ci wàllu bu duggee ci aw nit war leen a nuyu ak bu ko aw nit nuyoo ban taxawaay la ca war a am teggiinu buy wuy sax téléphone nan la war a def teggiinu bu gan ñëwee sax ci buntu kër bi mu ñëw di ko ubbil ban melokaan la war a def léeg-léeg nga gis koo xam ne ca kaw lay nekk naan la kooku boo fëggee buntu gone gu ndaw naan la kooku kooku fekk na loola waa kër gi ñoo ko def suñ ko yaraloon teeloon a yar mu yëg ne kat gan su fëggee bunt da war a ñëw ba ci bunt bi soo ko dee laaj kooku nga doo koo laaj kooku wala boo ubbee ba noppi nga wax ak moom mu xamal la ne mooy diw sàngam diw sàngam la soxla su fa nekkee nga ne ko xaaral dem ca moom ne ko diwa la soxla mu ne la ñëw na ñëw nga delsi ci moom ne ko nee a nga ñëw teggin yu mel noonu teel cee yar gone ji lu am am solo la lu am solo la teel leen a jàngal itam wax ci làkk woo xam ne làkk wu set wecc la làkk wa ñuy dund mu doon làkk woo xam ne wuñ munta bañ a xam la na ko waajur yi di waxante ci ñoom fi moom waxin woo xam ne waxin wu set la ndax mu mën koo dégg lépp loo xam ne daal bëgg nga gone gi màgg ëllëg mu noppal ko ci wàllu tegginam ak yaram ak ci wàllu diineem na nga teel sonn ci jikko boobu nga teel ko jëmbat ci moom ci bi mu nekkee xale lépp loo xam ne ñaari waajur yi miinal nañ ko ko loolu moom lay miin bu màggee moo tax woykat ba day wax ne wa yansha'u naashi'ul wildaani fiina wala naashi'ul fityaani fiina ala ma kaana awwadahu abuuhu ki nga xam ne mooy ndaw lañ jëmbat ci moom ay waajuram jëmbat ko ci rek loolu lay màggaale wax yonente bi sallallahu alayhi waxoon na ko kenn ku ci nekk buy juddu ak laab lay indaale maanaam këyit wu weex tàll la ah ay waajuram ñoo cay ñoo cay def lañ soxla bu màggee doonum nasaraan ñoo ko ko def bu màggee doonum yahud ñoo ko ko def bu màggee doon leneen it majuus jaamukatu sawara wala jaamukatu xiram su boobaa waajur yi ñoo ko ca def waaye bi muy ñëw ak laab la indaale woon loolu nag ki ko xam wax dëgg yàlla war naa góorgóorlu ba du gàddul gone àq fexe ba këyitam mu weex woowu su ci bind mu bind ci loo xam ne lu baax la bokk na ci it yi mu war a góorgóorlu ma alxirs ala isticmaal al ibarat al maqbulati tayiba ma al awlaad fexe ba jàngal gone gi wax joo xam ne wax ju sell la wax ju laab fexe ba aw làmmiñam mucc ci lépp loo xam ne xeetu saaga la gone gi nekk ci kër gi saaga judduwaalewut saaga judduwaalewu ko ndax kër gone gi lu ñu la mën a wax mooy aw làkk moom euh, du ko judduwaale fa muy jànge wax ña fa nekk la ñuy wax loola lay wax law boo jëloon fii gone goo xam ne ndeyam mag baayam ay wolof lañ yoo xam ne ñu nga dëkk ci kajoor wala ci njàmbur nga jël ko mu doon gone guy nàmp nga jël ko jox ko tubaab yoo xam ne tubaab dong la ñuy làkk buy jàng waxit tubaab lay làkk buy jàng waxit tubaab lay làkk kon ña muy dégg ñuy wax jamono ya muy jàng wax la ñuy wax lay wax kon kër gi jamono yooyu dox ba mu yàgg nga dégg gone gu saaga xamal ne mag ñaay saaga jàngiwu ko fenn ci ñoom rek la ko dégg ñoom nag bu ñuy saaga amaana saagaante wuñ waaye gone gi ci boppam la ñuy saaga gone gi nag bi nga ko saaga moom itam day jël saaga wow te bul xam nag ku mu koy jox bu yow mi mu ko jële woon ci yow bu ëllëgee mën na la ko joxaat su ko defee nag euh, adduna di bëgg a tukki nga ne gone gi day saaga aw mag day def nangam day def nangam fekk yow yaa ko yaa ko doon saaga ba xam ne ku mer da ngaa war a saaga te loo nga ko moom it mu saaga kon loolu yow yaa ko defoon ci moom kon ay mbir a ngi foofu yoo xam ne yu aaja tey la ah, jéem ko jàngal ba su meree mu mën a téye boppam du saaga walla fexe ba su meree sax wax kàddu yoo xam ne yu am njariñ la su bégee it fexe ba wax kàddu yoo xam ne yu am njariñ la su gisee lu baax mu ne macha allah fexe ba teel a def loolu ci làmmiñu xale bi gis na lu baax mu ne macha allah gis na lu baaxul wala lu ko yéemut mu ne subhanallah waxin yu mel noonu yooyu li ñu teel a jëmbat ci gone gi waaye fexe ba saa bu meree saaga kooku mag moo koy def ci gone ginnaaw moo ko ci def nag mën naa fexe ba def ci leneen loo xam ne lu dul loolu fexe ba def ci lu baax bokk na ci yi nga xam ne war nañ cee sonn it mooy gone gi euh, al xirs ala tahfiz al awlaadi kitab allah tel leen a jàngal alquran itam ci yi nga xam ne yiñ war a góor góorgóorloo ci la bokk alquran ak jiitoom ci gone am na solo lool dana ubbi am xelam ëllëg ngir xam-xam bu ñëwati bu nekk mën a jàll jàllin wu yomb jëmmi alquran ci boppam jàngal ko ndaw ñi sax na ne dana far dana far merum sunu borom tabaraka wa taala borom bi mën naa mere waaye juri xale bi ci sababu seenu dugal ko muy jàng alxuraan mer moomu mu leen mere woon mu dindi ko kon alquran jiitu ci dënnu gone lu am solo la moo xam da koy jàng lépp ba mu mokk wala da ciy jàng lam ci mën a jàng waaye fexe ba gone yi ñu jàngal leen alxuraan loolu lu munta ñàkk la njariñ yi bari na loolu jéggi na dayo loolu rek loolu rek doyoon na aw waxtaan muy njariñ yi nga xam ne alxuraanul karim teel ko jàngal gone yi am na ko ci ñoom waaye dañuy junj rek bokk na ci yooyu mooy taxsinuhum bil azkaar sharciya fexe ba teel leen a jàngal zikkar yi nga xam ne ñoo jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu koy sikkar moo xam subaa ngoon la wala suy dugg ci wanag wala suy génn ci wanag suy dugg ci jàkka suy génn ci jàkka bépp zikr wala tudd yàlla boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko tam woyof ci gone ñi teel ko jàngal xale yi ñi teel ko mokkal loolu itam lu baax a baax a baax la bokk na ci itam alxirs ala masalati tarbiya bil qudwa jiima góorgóorlu ba li ngay yare gone gi nga doon ci moom royukaayam nga doon ci moom royukaayam ndax kat gone gi li wér wér mooy ak luñ ko mën a jàngal ak luñ ko mën a xamal ñi dëkkal ci kër gi ñooy ñoom ñooy royukaay bi muy jëkk roy ndeyam ak baayam lam gis ci ñoom loola lay jàpp ne lii mooy dëgg ndax kat jamono yi mu nekkee xale juróom-ñaari atam yu jëkk moom gone gi li gën a rëy fi ñoom li gën a rëy fi gone gi ci jamono jooju gën faa màgg mooy ñaari waajuram keneen ku toll noonu amaatul fa leen teg tegu fa kenn moo tax lu ñuy def lu ne noon la lu ñuy bàyyi lu nekk pour moom des ko war a bàyyi luñ ne baax na moo baax luñ ne baaxul baaxul ginnaaw noon la nag ñoom ñaar am nañ foofu responsabilité bu rëy rëy rëy kon jiim leen a euh, yar ci seen comportement ñoom ci seenu dund ni ñuy jëf leen tey ñoom ci seen bopp fexe ba daal ci yarin wi contradiction bañ a am ci seenu dund ñoom di wax dara boole ko di def leneen lu bokkut ak la ñuy wax kooku day jaxase gone moom dafay daal di jaxasoo du xam lii lu mu doon ndax du xam liñ wax lay def wala liñ def lay def te it la chaque année lam gis ñu koy def loolu mooy gën a dëgër ci moom wax ko lii tey itam mu def ko ba léegi nga wax ko leneen lu bokkut ak la nga ko waxoon mu doon contradiction la nga ko digaloon wala yaay ji digal ko li baay bi jóg ne ko defal lee ñi di ca ñoom ñaar yooyu ci yi gën a mën a yàq xale bi gën koo mën a jaxase ci la bokk nañ fexe ba bennale seen kàddu teg ko ci aw yoon suñ koy jubbanti bokk jubbanti ko suñ koy digal bokk digal ko suñ koy tere itam bokk tere ko bokk na ci it yiñ ko war a teel a jàngal mooy alwafaau bil waad jàngal ko lum digee def ko lum digee def ko léeg-léeg nga gis ñoo xam ne bu xale bi lee di laaj jox ma nàngam jox ma nangam jox ma nangam danaan ko bu ma ñëwee jox la ko wala bu ma jógee jox la nga jóg mu ne la ana li nga ma waxoon léegi yaa ne woon boo jógee jox ma nga bañ koo jox foofu dafa yéegi ni kii li mu waxoon defu ko yaa ngi koy jàngal foofu bañ a maanaam wax ba noppi bañ a def li mu wax foofu li jaadu woon mooy lim laaj su fekkee lu munta am la nga ne ko ah loolu munta am tey xaaral ba beneen su ko defee bu dee jooy ca loola it loola la jële ci yow waaye waxoo ko loo mënul soo ne ko danaa ko def yàlla dogal far naroon nga ko waaye sottiwut nga woo ko ba mu ñëw nga ne ko lii gët bëggoon naa la ko jox waaye damaa ñëw fekk nangam ak nangam ak nangam leeral ko fexe ba fa mu toll ci xalaatam ak xelam dana mën a yëg ne lii jubluwoo ci war waaye naroon nga ko waaye da da nga koo mënut da dem ba mu yàgg mënatoo ko loolu moo tax li ëpp solo daal tomb bu am solo la foofu mooy nañ wattandiku nax gone ji ñu bari sax xale buy jooy wala mu lëj de wala yu mel noonu naxal gone gi lañ koy tuddee waaye nax yooyu baaxul su fekkee ay nax la baaxul ndax yaa ngi koy jàngal naxe moom ci jëm bopp léeg-léeg nga gis ñoo xam ne dañ jekk bu mu yàgg gone giy jooy ñi jël ci yenn dëkki kaw yi ay ndërëxaan lañ koy tuddee xam ne am na xeetu loo xam ne boo ko diwee ci sa baaraam yor beneen bant di ko ci dawal dañuy jël lu mel ni saaru leget teg ko ci kaw bu guddee da ngay dégg son bi mu génne mag sax bu ko déggee day tiit ñu ne ko ndërëxaan gàngoo su ko defee mu daal di bàyyi jooy yi kooku day dema dem ba mu yàgg mu xàmmee gis ne ah ndekete lii lañ ko doon naxe ba muy noppi kooku am na jeexit bu muy def ci moom boo xam ne mën naa dem ba wàllu yàlla sax ak lu ci aju dañuy jàpp ne geneenum ndërëxaan la gu ñuy tiitloo nit ñi rek waaye ku dem ba trouvé ko du soo rek ndërëxaan gañ ma doon naxa bi ma nekk gone su ko defee yooyu li muy bàyyi ci bakkanu xale baaxut moo tax wàllu nax gone guy jooy ak noppiloo ko foofu tomb la boo xam ne yarkat yi war nañoo seet bu baax a baax a baax niñ ciy jëflante gone yi ndax gone kat eh, li jiitu ci am xelam mu fas ko mu nekk ci bopp bi dana dem a dem ba màgg mu def ci moo tax jamono yi ngay jëflanteeg moom di waxanteeg moom jéemal a góor góorgóorlu fexe ba say mbir nga teg ko ci yoon danga war a contrôler sa bopp ci yu bare bare bare bare ba mu sa diggante ak moom bokk na ci yooyu it ibaadu almunkarat wa ajhizat alfasad an al lépp loo xam ne ab moyen la wala ab jumtuwaay boo xam ne mu ngi ci biir kër gi te wóor la ne bi jumtuwaay day yàq gone kooku jëlee ko bu fekkee mënoo ko contrôler teg ko ci yoon dafa jub léeg-léeg nga gis ñoo xam ne seeni gone yàqu nañ waaye ñoom ñoo leen yàq te jumtuwaay yi yàq gone ci suñ jamono dafa bari dafa bari jumtuwaay yu ñuy seetaan ak yu ñuy dégloo yoo xam ne boo ci bàyyee gone ñetti fan ñeent danañ ca seetaan loo xam ne dana leen dugal ci njaaxum goo xam ne xel mënu ko woon a xalaat wala ñu dégloo ca loo xam ne xel mënul woon a xalaat ne gone dana dem bay déglu loolu te gone yi léegi daanaka ay mag lañ kon yooyu yu mat a wattandiku la yu mat a bàyyi xel la lépp loo xam ne wóor na leen bu duggee ci kër mën naa yàq gone te mënuloo ko contrôler loolu bu ko dugal lu mat a bàyyi xel la bu yàggul rek ci ñu ngi jàng ci ab journal ci réewum lislaam moo xam ne réew mu siiw ci mbaax la góor goo xam ne ay kaset yu bon la yóbbu woon ci këram kaset yoo xam ne ya ca nekk ay mbir yu xóot la ci diggante góor ak jigéen foofu la mën a yem mu bàyyi ko ci këram génn dem di julli ji ci jàkka ja ay doomam yu góor ak yu jigéen jël ko dugal ko ci vidéo bi di ko seetaan ay xale yoo xam ne xale yu ay mag lañ ay mukallaf ñuy seetaan ba mu yàgg lañuy gis ca mbir ma ñu wëlbatiku ñoom seen jëm bopp di ko def mujj ñi baaxoo di ko def te góor gi yëgu ci dara ba mu yàgg mu xëy gone yu jigéen yoon ci kër gi yépp ëmb biñ ko waxee loolu docteur bi wookoon xale yi seen biir di metti ñi di wàcc ñi def ñi seet mu gis ni dañoo toll diggante ñoom ñëpp ñu wax ko ko bi mu gëstoo ba xam ne loolu moo ko def moom góor gi ci boppam dafa crise foofu la feggee moom faatu léegi nag problème yi doon a des ci biir kër ga ak njaboot ga ak noonu loolu lépp li ko ko andil benn kaset boo xam ne dugg na fi béréb jënd ko dikk tàbbal ko ci biir këram aw fanam yem na ca ak njabootam ay doomam soppi ko ay jirim ay soxnaam soppi ko ñuy ténji seeni jikko yàqu na mooy nañ yàlla mën nañoo wax ne kër ga alku nañ te lépp li ko def mooy benn kaset boo xam ne jënd nga ko tàbbal ko ci kër gi ak jumtuwaay boo xam ne mënees na cee sukkandiku di ko seetaan mu àgg ak moom foofu kon lépp loo xam ne nit ki mu ngi koy dugal ci këram bu mu ko xeeb na ko bàyyi xel benn mu contrôler ko ci anam goo xam ne gu wóor wóor la su fekkee daf caa am ay anam yu am njariñ mu fexe bañ mën caa jariñu te duñ ca loru bu fekkee ne genn anam amu ci njariñ nag mu bañ ko faa dugal moom mooy li ci gën bokk na ci itam yi nga xam ne war na ko jiima góorgóorlu ci jamono yi nga xam ne mu ngi yar xale yi mooy tajnibuhum azinatu alfaariha wal muyoatu alqaatila fexe ba xale bi nga xam ne xale bu góor la ñu teel koo yar yarinu góor mu teel a def ci moom njàmbaaruk bañ a yor melokaanu jigéen ci wàllu nooyaay ak ay diwoo ki yëf yëfaan yoo xam ne bu sottee góor gi di sotti ku mel ni jigéen waxuñu nag ni ku góor ki bu mu teral boppam bu mu set bu mu kay dafa war a set wecc dafa war a toppatoo boppam ba doon ko wax ne ko ci xam ne kii jullit bu set wecc la waaye nag waxuñu itam nag góor soppi ko faf mel ni jigéen nag faf léegi am na góor ñoo xam ne dañoo dem sax far bi ci jigéen ñi lañ doon léegi am na góor ñoo xam ne dem nañ far bay xeesal faf kooku kooku du doon du doon jàmbaari lislaam ju juñ naan jur ku mel ni moom jafe na jigéen juy wàcc di wàcc ba àgg ci di xeesal wala mu def ay léttam wala mu takk ay jaaroom kooku jur ko jafewut kon loolu yu mat a bàyyi xel la ne lenn lu ci nekk nga def ko lu digg dóomu maanaam ci wàllu taaroog wàllu rafetoog wàllu diwoog wàllu peñewoog yëf yëfaan yu mel noonu yooyu na ca def la ca yam rek yam ci waaye bu mu ku moom ku góor ki doon mukk jigéen ku jigéen ket bu mu ji ma soppiku mukk di doon góor kon njàmbaar gi war a am ci moom ak ñagas gi nga xam ne moo war a ne ci góor ak wattandiku lépp lu jëm ci wàllu taayeel ak nooflaay bu ëpp ci góor kooku daf ko war a wattandikul wattandikul ay xaleem biñ doone ay xale ñu teel a yëg ne taayeel ak mujjëm baaxut teel a yëg ne sawar ak góor góorgóorlu ak mujjëm lu baax la ci àdduna ak alaxira loolu ñu teel koo def ci ñoom wa mimma yanbaghi fi dalika taawiduhum al istighas axira al layl di leen jàngal itam ñu teel a yeewu teel a lu baax a baax la ndax waxtu njël la chaque waxtu la woo xam ne waxtu bu bari ay barke la bu bari ay njëriñ la te nit ki bu xasee tàmm yeewu ci waxtu woowu saa bu jotatee rek day yeewu kon su ko gone teewee teelee tàmm su màggee taxul ñuy wax teel leen jàngal yitam teel a wattandiku wax ju amul njariñ fudulul kalaam ak nelaw yu bari lool ba ëpp ak itam jaxasoo ak ay nit jaxasoo gu amul njariñ yooyu yu mat la teel wattandiku la ndax yooyu kat perte rek la lay jariñ ak waxtu sànku te bu buñ gisee danañ buñ xoolee danañ gis ne lu bare bari ci loo xam ne mooy sànk waxtu ndaw ñi tey ci sun askan mooy jaxasoo jaxasoo boo xam ne bu amul njariñ la toog rek di waxtaan wala nga jékki-jékki rek jóg di dox damay ziyaare kii boo ci jógee waaxu demaat fële boo ci jógee doxal dëgg la ziyaare ak dox ak bokk ak yu mel noonu yooyu yëpp lislaam bëgg na ko da nga koy boole ci biir programme bi waaye nag su demee ba moom dong mooy mooy itte ji amatoo leneen loo def lu dul di waaxu rek foo dugg fii génn fii boo génnee jàllaat fële boo léegi nga génn ngeen teg chaise toog waxtaan attaaya sànq ci waxtu kenn xamul lu muy toll kooku perte la bu ko def yaa yëgoo ko ndax dund gi dund gi lu ci jógee lu ne du dellusiwaat seconde bi jàll jeex na loo ci defuloon duutoo ko ci def waxuma la minute minute bi ak waxtu wi nag ak bis bi su xasee jàll jeex na loo ci defuloon doo ko ci def te danaa di fàttali mbokk yi toujours ne leen ñi nga xam ne du ay jullit sax nga xam ne seen yoon nekkul ci alaxira programme wuñ ko boo xoolee ni ñàkkee jot nga xam ne àdduna dong nga leen tax a jóg yow mi bëgg a boole àdduna ak alaxira yow da ngay rus da ndax su fekkee kii liggéeyal adduna dong fexe na ba waxtoom lépp tegu na ci programme amul dara lu ci sànku guddi ak bëccëg mu ngi liggéey ak di xalaat lu jëmale kanam addunaam yow nga di jullit ñi indi la fii nga wax ne da ngaa bëgg sa adduna baax tegu ci yoon ba doo torox bëgg itam ëllëg sa ëllëg baax ba doo torox kon yow yaa war a gën a ñàkk jot kooku su fekkee ne yaa ëpp jot say waxtu lu nekk xaj na ca ba mu des lu baax kooku yow jëmoo fenn kooku jëmul fenn faaw wax ju bari jeeg waxtaan weeg jot geeg toog di waxtaan kenn fee diw moom lu mu xëyee tey ñu ne ko fële la gontoon biig dem na fii man de seen naa ko démb def na wax yooyu nga xam ne amul benn njariñ te day lor kooku jullit bi daa war a dem ba amatut ci biir programme am nga xam ne kooku seen muy waaxu rek xamal mi ngi waaxu ci loo xam ne lu koy jariñ fii ci addunaam la wala mu koy jariñ ëllëg ci àllaaxiraam bépp yëngatu wala noyyi boo xam ne yaa koy yëngu te njariñ jógewu ci lu ñëw ci sa àdduna wala luy dellu ci sa àllaaxira wala nga nekk di noppalu ngir mën a bañ a jóga jëm ci loolu xamal ne yaa ngi sànq sa waxtu te loolu perte la indi yal nañ ci yàlla mosal bokk na ci jaadu itam tashwiquhum li dahabi ila al masjidi sigaaran teel leen a jàngal julli comme li ko yonente bi sallallahu alayhi wa digal leen leen ñiy julli ñu amee juróom-ñaari at ku ci dem ba am fukki at nag su lànkee bañ a julli su boobaa caw ko dangeen ko dóor dóor boo xam ne bu woyof la ah yóbbu leen ci jàkka ji it lu jaadu la teel leen a tàggat ci jàkka bañ xam ko su fekkee xas nañ dem ba xàmmee mooy li ci gën su fekkee xale yu xàmmee guñ la nag la gën mooy su fekkee mënees na leen bañ a yóbbaale ci jamono jooju mooy bañ leen a yóbbaale ndax mën nañoo yàqal mën nañoo yàqal nit ñi la ñuy def su fekkee nag euh, dem nañ bay xàmmee wala même xàmmeewut waaye kii ma nga jëm ci jàkk ja te amul nu mu ko def parce que mënu ko faa bàyyi amul ku mu ko jox bu boobaa ngaan su moo tax ko ci biir jàkk lu mel noonu daana am ba ci jàkk yonente bi sallallahu alayhi wa nga ne daana nekk ci biir julli sax dégg doom ji jooy fekk dafa naroon a guddil guddal julli ga mu gaaw gàttal ko loolu kon xale yu ndaw ndawaane daanañ dem ci biir jàkk ja waaye ngaan su moo koy waral bu dee ku xàmmee ki nag nga xam ne xam na moom kooku des ko war a yóbbaale yóbbaale mu teel a ñeme jàkka xam ne bu jaamukaayu yàlla la béréb bu ñuy tànk aw yiw la waaye ñu bare bari ci seen i jàkk dañuy tere gone dugg fa oxu kay gone yi dañoo war a dugg ci jàkk yi waaye nag des leen a war a organiser jàngal leen itam ñu teel a xam ne néeg bu ñu ormaal la bokkut ak kër ga lañ ñeme ci kër ga waruñu ko ñeme ci néeg boobu ci yëkkati ay kàddoog ay yuuxoog ay fo di daw di dem ak ñëw léeg-léeg da ngay nekk ci biir julli dégg gone yi nekk ci biir jàkk ji di daw yàgg nga dégg ñuy saaga fekk yaa ngi gone yu mel noonu ñoo nekk ci biir jàkk seeni waajur dañ leen war a jël defar leen bañ xam ba xammee ne fii ñuy dugg bokk te fañ nekkoon ci kër gi su ko defee buñ diggee orma ji jàkk am ñu jéem ko indaale jéem a yaru bu jaree dajale leen fi béréb wala teg leen ci diggante ay mag ñu mën a ànd ak ak dal ci biir julli gi euh, lu mel noonu lu baax a baax la ndax suñ ko teelee tàmm biñ doonee ay gone suñ màggee duñ ragal mukk jàkk bokk na ci am solo foofu it moo di mu muraqabatu muyulil walad wa tanmiyatu mawaahibihi wa tawjihuhu lima yunaasibu moo di gone yépp bokkuñu yam gone yépp bokkuñu yam ki mën a yar dëgg-dëgg ci orienté xale bi mooy kii fexe ba xam ne xale bii de ku ko jëmale ci nàngam dana ko man nga fexe ba xam loola tam doon lu baax nga jëmale ko ci al imam ibnul qayim wax na fi wax joo xam ju am solo la ci téere bi ñuy wax tuxfatul mawdud danaa ko jàng firi ko daf ne wa mima yanbagi an yuctamada xaalu sabiyi wa ma huwa mustacidun lahu min al amali wa muhayaun lahu minha nee na bokk na ci am solo ci yar gone gi ñi teel a xam ban liggéey mooy bi gën ci moom fa yaalamu annahu maxluqun lahu nee na su ko defee mu xam ne kii dafa mel ne biñ koy bind liggéey sàngama tax ndax kat léeg-léeg mu am fala yaxmiluhu ala gayrihi maa kaana mazunan fihi shar'an mu ne su fekkee xas na xam ni kii nanga ma gën ci moom du ko jiima orienté jëmale ko ci leneen li feeg ma ngay man ci moom dara fa innahu in xamalahu ala gayri ma huwa mustaidun lahu lam yuflix fiihi wa faatahu ma huwa muhayaun lahu nee na su fekkee ne xale bi am na benn métier wala benn xam-xam boo xam ne bii mooy bi gën a dëppoog moom nga jële ko ci yow yóbbu ko ci beneen nee na lor nga ko lu tax lor nga ko mooy bële nga ko yóbbu du fa tekki dara tey it faatloo nga ko la nga xam ne su duggoon dana ca dana ca am ak jëm kanam mu ne fa ida ra'aahu xasan alfahmi saxiix alidraak jayid alxifdi waaciyan fa hadihi min calaamaati qabulihi wa tahayu'ihi lilcilmi liyunqishu fi lawxi qalbihi ma daama xaaliya mu doon xale boo xam ne kii luñ ko wax rek mu gaaw koo dégg te soo ko waxee dara du ko gaaw a fàtteeti te mokkal dara daf ko yomb lool nee na kooku daf lay won ne kii des ko war a jëmale ci xam-xam nee na gaawal def xam-xam ci xol ba soo ko ca defee kooku du ko gaaw a fàtteeti mu ne fa fa innahu yatamakkanu fiihi wa yastaqirru wa yazku maahu nee na ndax ci xam-xam boobu su ko defee ci moom la chaque ni ginnaaw melokaan yooyu la yor kon xam-xam boobu day sax wa in raahu bi xilaafi dalika min kulli wajhin fa huwa mustaiddun fa in lil fa in kaana mustaidan lilfurusiyati wa asbaabiha min alrukubi walrami wallaabi birromxi wa annahu la nafaada lahu fi lilmi wa lam yuxlaq lahu makkanahu min asbaabi alfurusiyati wa tamarruni alayha fa innahu anfacu lahu wa lilmuslimin mu ne su fekkoon ne dafa dem ba mu yàgg mu gis ne kii kat ba mu koy wax ci jamonoom noonu la koy waxee war ay fas la gën a man sànni la gën a man maanaam lu jëm daal man nga ci wàllu euh, militaire maanaam ku ko préparé daal pour mu doon koo xam ne dana amal njariñ armée bi nga yëg ni kii lii la gën a man nee jëmale ko ci loolu ndax loolu nee na moo koy ëppal njariñ mooy ëppal njariñ it jullit ñi وإن رآه بخلاف ذلك وأنه لم يخلق بذلك ورأى عينه مفتوحة إلى صنعة من الصنائع مستعدا لها قابلا لها وهي صناعة مباحة نافعة للناس فليمكنه منها nee na su fekkee dafa dem ba mu yàgg mu gis ci moom wàllu xarala léeg-léeg nga gis ko ci xale yi yoo xam ne dañu jékki-jékki di fent dara di defar loo xam ne ci seen i fawukaay rek ci nga ciy gisee ñoo xam ne dañuy dem bay fent dara defal dara su ko defee nee na boo gisee ci moom xeetu xarala bu mel noonu nanga ko jëmale ci xarala boobu moo xam wàllu tabax la moo xam wàllu mbay sax ci la jëm wala ci wàllu ràbb wala lu mën a doon loo xam ne lu am njariñ la te dagan nee na loolee nga gis xaralaam jëm ci nee na na nga ko jëmale ci loola waaye mu teg ci lu am solo nag mu ne hada kulluhu baada taalimihi lahu ma yaxtaaju ilayhi fi diinihi nee na nag ànd ak jëmale googu nga koy jëmale ci la muy liggéey te gën moom nee na bul fàtte ne nag danga ko war a jàngal lim aajowoo ci diineem ndax kenn ko ne daa am loo war a xam ci diine moom nga xam da nga ko war a xam ba noppi door a dem defi la ngay def su fekkee gis nañ ne daal kii ku ko jëmale ci xam-xam dana ci am njariñ jëmale ko ci xam-xam boo gisee ni ci liggéey sàngam ku ko ci dugal wala sax xeeti xam-xam yi gis nañ ni kii nangam la war a gën a mën bu dee ci day jàng nga ne kii médecine la war a gën a mën wala lii la gën a mën nga jëmale ko ci xam boobu soo gisee ni itam nag kii yooyu yëpp kii ko waaye xeetu xarala wala métier mu ñuy jàng nga xool ba gis métier ma gën ci moom nee na nga orienté ko ci loolu mu jëfe ko ndax lu dul loolu danga nga ko tardeel la muy jàngi du ko man te fekk lam lam la ko waroon a gën a lam waroon a gën a man dëgg-dëgg faat na ko jazakallah xëy euh, kon danañ jéem a gàttal rek tànn yi nga xam ne ñooy yi ci ëpp solo ndax waxtu bi soreetul <coughs> bokk na ci ci am solo moo di taawidul waladi ala alqiyam bi baad almasuliyat jàngal ko lenn ci teel koo yan ay responsabilité moom xale bi ci xisab yonent yàlla ibrahim ak doomam ismail borom bi tabaraka wa taala daf noo nekk li mu ne falamma balaga maahu saaya qaala ya bunaya inni ara fi lmanami anni adbaxuk fandur maada tara qaala yaa abati faal ma tumar sa tajiduni insha allahu min alsabirin ibrahima alayhi salaam ab yonent la tëdd guddi gént borom bi tabaraka wa taala digal ko mu rendi doomam te xam na ne géntu yonent waxyu la maanaam ndigal la ismail doom la joo xam ne dem na ba màgg ma ngay dox di dem ak a ñëw fa la ma balaxa maahu saay maanaam dem na ba doon doom joo xam ne mën naa dox xàmmee na mu gént gént boobu ab nattu nag la bu rëy rëy ndax góor goo xam ne dem na ba am juróom-ñett fukki at door a am doom ba noppi doom ji doon koo xam ne na xol ba ajoo ci moom ci xeetu mbëggeel wax dëgg yàlla sori na dem ba toll ci mën a dox borom bi tabaraka wa taala ne ko rendil sa doom kon ab yan bu diis dikk na waaye nan la def moom ibrahima alayhi salaam mooy def ko woo mu ñëw mu ne ko yaa bu nayya yow sama doom inni ara fi lmanaami anni azbaxuk man day gis naa ci ay nelaw ñu ne naa la rendi fandur maada tara xoolal lu ciy sa xalaat xoolal xoolal foofu diisoo ak gone goo xam ne gone gu ndaw goo xam ne day toll ci mën a dox xoolal lu ciy sa xalaat ànd ak ni kii liñ ko digal wax yu la defal nangam mu ne ko lu ci sa xalaat waaye foofu am jàngale mu rëy ngi fi mooy xale bi du looy def lu ne rek da ko koy digal ne ko defal nangam bàyyil nangam defal nangam mu mu yëg ne li tax muy def mooy dañ ne ko defal li tax muy bàyyi it mooy dañ ne ko bàyyil rek waaye xamut ne muy def daa gën moom li muy bàyyi it daa gën ci moom loolu lu am solo lu mat a bàyyi xel la ibrahim bi mu waxee loolu doom ji daf ne ko yaa abati yow sama bàyyi ifal ma tumar dafa liñ la digal xale bu ndaw la waaye teewul xamaale na ne kat bàyyam yonent la xam na it ne géntub yonent ndigal la moo tax mu ne ko defal li ñu la digal sa tajiduni insha allahu min assabirin da nga ma fekk ma doon ab muñkat maanaam sooy boo nga rendi ma da fekk ma doon ko mën a muñ yaakaar naa ne lii eh, yar ba tàmbalewut foofu yar ba tàmbalewul foofu maanaam yar jiitu na ko Ibrahim am na fu fu mu jaar ak gone gi ba ndigal lii bi mu ñëwee ñu fekk xale bi mu mokke noonu waaye su doon fii la tàmbalee di ko yar kon xale bi du ko tontu loolu mukk am na ko njëkk a jaar kon kooku yar nañ ko ba àgg na ci baay bi ci boppam mu ngi jàngalee ne gone gi kat lu mu tuuti tuuti des war a diisoog moom kon nit ki gone gi lu mu tuuti tuuti des ko war a yëgal ne moom am na personnalité maanaam dara la dara la loo xam ne rek doonul jumtuwaay boo xam ne mel ne rajo bi ngay toppalee ko tegaat fii waaye nit la koo xam ne suñ koy wax defal nàngam war nañ koo xamal ne ko lii ñu naan ko def ko moo gën ci yow lii ñu naan ko bàyyi ko it moo yées ci moom moo tax ñu ko koy tere jàngal ko loolu dana tax mu teel a mën a xàmmee teel a mën a xalaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al imam muslim dafa nettali ci xadisu euh, sahl ibn sahl ibn saad saaidi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn bés dañ koo jox ndox muy naan fekk bi muy naan am na benn xale bu ndaw bu toog ci wetam aw mat toog ci wetu càmmoñ gi xale bi toog ci wetu joor ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naan ba noppi ah ñoom ñëpp war na leen jox ñu naan te gone gu tuuti moo nekk ci wetu ndeyjooram te xam na ne buy joxee ci wetu ndeyjooram la war a tàmbalee mag ñi ñi ngi ci wetu càmmoñ gi lan la ko wax mu ne ko atazanu lii an utiya haula wax gone gi ne ko ndax may nga ma ma jox mag ñi ñu jëkk laa naan ndax may nga ma ma jox mag ñi ñu jëkk laa naan am nañ na xale bu tuuti la fa qaala al gulaam laa wallahi bu leen jëkk jox laa usiru euh, bi nasibi minka ahadan du ma nanguwuma jox ma jox ma ma naan ba noppi nga door leen a jox yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko mu naan mu door a jox mag ñi mu ne ko kay nga naan ba noppi kay man ma tegu ci loolu duma ko may kenn man kay ginaaw maa ci sañ a tegu moom sharia man maa ciy tegu ginnaaw saab cëre fi nga naanoon teg fi sa balaa mag ñee naan man maay naan la ko day ko jox mu naan door jox mag ñi ñu naan foofu lim lay jox mooy gone gi kat lu mu tuuti tuuti itam doonut koo xam ne rek loola neex def léegi-léegi nga toll koo xam ne sharia moo lay moo lay conditionné moo lay wax defal nii bàyyil nii ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa moo jàngale woon ne kuy séddale dara da ngay tàmbale ci lay jox kon munta naan ba noppi rek daal di joxe ci càmmoñ bu noppi mënees na koo laaj lu tax nga jëkkee jox ñu nekk ci càmmoñ te bu jekkee-jekki jox gone gi ci ndeyjooram mën nañ ko laaj ah waaw mag ñi toog nii nag lu tax nga tàmbalee ci gone gi mu ñaan gone gi ndigal ne ko ndax man nga maa may ma jox mag ñi kon foofu daf lay jox ne xale bi kat bul jàpp ne tuuti na rek kon lu ma neex def léeg-léeg nga àgg foo xam ne charia moo lay tënk su ko defee bu boobaa sa ñëw rek xët daal di jàll dem waaye ndigal la bu boobaat suñu sunu borom tabaraka wa taala la jóge te suñu borom moo yé moo ne ci ko ñëpp kon foofu jur adabiya bi nga xam ne moom moo am lu mat a bàyyi xel la moom itam xale bi xale bu duñu wax ne bu ñàkkub yar la maanaam bu yaru la ndax noonu mu waxee day wane ne am na xàmmee am na ak xàmmee bu doon koo xam ne dañ ko yar yenn yar yi nga xam ne dañoo nit ñi dañoo jàpp ne ku yaru mooy koo xam ne dañuy yàgg rek du wax amut lu muy bañ amut lu muy bëgg amut mer amut déedéet kiñ bëgg nit kiñ bëgg dëgg dëgg du ko mel noonu kiñ bëgg dëgg dëgg mooy koo xam ne dana bég dana mer dana bëgg dana bañ waaye lum mu ci mën a doon da koy defe fa mu ko war a defe ak nam ko war a defe buy bëgg day xool lan lañ war a bëgg mu bëgg ko su xamee ni lii lañ war a bëgg ba noppi ku koy bëgg noo koy bëggee mu xam niñ koy bëggee suy bañ mu xam ne lii luñ war a bañ la waaye ku ko bañ war a bañ it ba di ko bañ noo koy bañee mu xam loolu kuy mer lan mooy tax nga mer xool li tax nga mer bu loolu di tax nga mer itam loolu noo koy merale kuy bég lan mooy tax ngay bég boo demee bay bég itam nan ngay bégee ci loolu yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne dañ koy jàngal xale bi ba mu xam ko kon kii bi mu demee bay gàntu li ñu tuddee al jura al adabiya maanaam fit wu dëgër wu ànd ak i teggin moom la xale bi yor moo di gantu na li ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon ñaan waaye nag ni mu ko firee it moo di xamal ko ne ko yow yaay yonentub yàlla man may mbindeef yonentub yàlla naan ba noppi sharia jox ma droit ma war a tegu ci moom loolu moom bokkut ci yi ma mën a maye wax dëgg yàlla keneen ku mu doonoon it nag boo ànd ak sam xel tey mag it doo ko mën a maye wax dëgg yàlla yonent bi moo naan ba àggal ma war a jël sama gémiñ di ko teg fa gémiñam nekkoon loolu moom su ginnaaw man la ko sharia jox mën na ma may leneen waaye loolu mënu ma ko maye loolu lu ama am solo la euh, al jur al adabi dafa am solo benn bis Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu dafay dox ba romb ay gone ñu toog naka ñu ko séen rek ak Omar ak ni mu mel ak nga xam ne mag ñi sax dañ koo ragal seytaane sax far bu ko séenee daw mu ñëw xale yi séen ko tasaaroo daw ba mu des genn gone mu toog Omar ñëw nuyu ko mu fay mu ne ko waaw lu tax ñëpp daw nga des fi yow dong mu ne ko damaa tooñut maanaam ginnaaw tooñu ma la ah kon jarul may daw loolu moo taxoon defuma la dara maanaam kon loolu lu mat a lu mat a teel a jëmbat ci gone gi la ba mu xam euh, li muy def lu mu mën a doon leen rek mu am fu ko teg bokk na ci am solo itam moo di taqdiru maraxili al umr lil awlaad sàmmoonteeg euh, xale bi fum mu toll ci dundam fu nekk nga tollu fa ak moom fu mu toll fu ne ci xeetu yarin wi nga toll fa ak moom xale bi day màgg man a melul leen rek day mel nii daaw bu déwénee leneen tegu ci bu déwénaatee leneen tegu ci li gën a bari nag ci waajur yi dañuy jàpp rek ne man bàyyi laa moom doom la jeex na loolu rek moo dox suñu diggante waaye déedéet doom ji doomi daaw ja ren soppiku na doon keneen bu déwénee day soppiku doon keneen bu déwénee day kon saw jëflante ni ngay jëflanteeg moom loolu tam day avancé day jëm kanam day jëm kanam ndax ni ngay gisee ne jëmmam day tuuti nga jekk ba yàgg nga gis jëm ji màgg léeg-léeg nga gis ku dem ba yàgg sax mu tiim baayam faf ci taxawaay su boobaa wax dëgg war ngaa reconnaître ne kii melut na meloon ba muy door a judd kii màgg na su ko defee euh, njuumte la nga jàpp ne gone rek la ba faaw njuumte la it leneen li ci des te loolu moom day faral di dal jigéen ñi lu bare bari mooy gone gu tuuti ñu jàpp ne mag la di jëflanteeg moom ni ñuy jëflanteeg mag di ko yedd ni ñuy yedde mag xale bu tuuti boo xam ne ci ñaari at wala ñetti at wala ñeent la toll nga nga di ko xas ah, di ko di ko xas mel ni koo xam ne mag ngay waxal nangam ak nangam yaa ñàkk jom yaa mel ni yaa def nangam ak nangam loolu wax ju yàqu la kooku am na yeneen orientation yu ñu ko war a jox yu dul toog di ko xas wala di ko wax yu mel noonu kooku ay ñaari baat ak ñetti baat dong la mën a xamagoon lii baaxut lii baax na lii baaxut lii baaxut ba ngay avancé moom ba ba toll feneen kon daal fexe ba xam fi mu toll ngay jëflanteeg moom ca noona su màggee nga yokk soo jëflantil ànd ak moom bu àggee ci ñi war koo fonk war koo respecté war koo yëkkati ba xam ne mu nawle la it bu boobaa ñi xam ne foofu si na fi jëflanteeg moom ci anam yu mel noonu ndax doom ji léeg-léeg mu dem ba àgg ci nag doon ab nawle bu wér ci anam yëpp léeg-léeg mu dem sax nag ba ba raw baay bi su boobaa da ko war a nangu nag ah léegi yow yaay jël sa doom dugal ko muy jàng te xëy ne amoo woon xéewalug li mu jàng nga jàng ko yow léegi jàng na nag ba raw ba tey dangay wax rek comme que sama doom la man maay digle maay tere même su andee fii lu bees itam du ma ko nangu kooku itam ci erreur yi lay doon benn mbokk nga koy wax benn benn góor goo xam ne doomam dafa dem na jàngi ba ñibbisi di jëfe jàng mën ko du ci dal doo ko fi jëfe ndax loolu nun xamuñu ko woon ak suñuy baay ak suñuy maam doom ji bi mu jaaxlee ba woo leen ci mbokk yi ba ñëw ba ñuy wax góor ga kenn ci mbokk yi daf ko wax wax am solo dañu ko léegi kii yow ni mu mel mi ngi mel ne da nga ko doon tong mu yéeg da jàppoon ci tànkam téyal ko tànkam mu yéeg mu yéeg a yéeg nag ba àgg ca kaw garab gi xool di seen yoo xam ne yow mi taxaw ci suuf gisatoo ko mu naan la sama papa maa ngi seen fële nangam ji ñëw nga naan ko déedéet gisoo dara parce que man maa jàppoon ci sa tànk bi ngay yéeg eh, yow yaa ngi ci suuf yaa ngi taxaw ci suuf tiim na la bu yàgg dem na kon nag baay bi jamono yoo xam ne doom ji dem na ba raw ko nag na nangu ne raw na ko te kat da koy nangu ci yeneen yi yi da nga xam ne doomam day dem dugg médecine nekk ab docteur bu demee ba jaaxle ci feebaram te fekk doom ji loolu la jàng ci moom lay tàmbalee yow kat maa la jur maa la yóbboon nga jàngi xam nga léegi nag maa ngi am naa problème sama wet gaa ngi metti seetal ma mu jël ay machine am ak yëfam xool ba àggalee bind ordonnance mu waaxu dem jëndi wala mu jëndal ko sax jox ko mu jëfandikoo jàmm ne kooku nangul na ko xam waaw lu tax xam-xamu diine bi itam soo ko jàppalee nag ba raw la ci itam bés boo demee ba jaaxle ci masala da nga ko war ne ah, yow kat maa la juróon maa la yebaloon nga jàng bala maa dem ci benn borom xam-xam ci yow mii laay tàmbalee nangam ak nangam ak nangam nañ koy defee noonu la bàyyi bi war a jëflanteeg doom te kat loolu dàqoon ci wut ne mooy baayam wërta taxit gone gi yëg ne moo gën baayam wërta tax mu jàpp ne moo ko gën dafa war a sant yàlla war ko ko gërëme itam yëgal ko ne ko ah man kat lii ma xam ak su néew wax dëgg yàlla bariwut waaye ci yow la ko yàlla jaarale ndax yaa ma yebaloon ma jàngi boo xëyoon dugal ma ci leneen na nga ni du ma xam lii ma xam kon jëflante bu mel noonu moo wax dox ci diggante boobu ginnaaw mi ngi màgg daal fexeel ba nangul ko ne mi ngi màgg moo xam màggu yaram la moo xam màggu xel la moo xam màggu xam-xam la faaw ñu nangul ko loolu kon mbokk mi mel na ne mi ngi may yëgal ne waxtu wi euh, jeex na ma tànn benn tomb rek boo xam ne danaa ko mujjee kon incha allah euh, su ko defee ñu door a mën a ubbi bunt bi jël yeneen yi ci des euh, waxtaan wi gën naa gudd lii lool wax dëgg yàlla waaye waxtu wi dafa doon waxtu woo xam ne dëpp wut ak kii te dañoo xas ba dugg ci biir bax bi muy recherche bi rek dem muy muy gën a gudd ñi ñuy continuer rek bi ci mujj daal moom kon mën naa jokkoo ak boobu ma doon wax léegi moo di tomb boo xam ne ci Omar ibn Xataab radiallahu taala anhu e, ci lañ koy jëlee waaye balaa boobu e, na am benn tomb boo xam ne danañ ko mujj mooy léegi léeg xale yi bu buñ defee njuumte nan lañ koy saafaraa buñ defee njuumte nan lañ koy saafaraa léeg-léeg dangay ngay gis koo xam ne day def njuumte yu rëy léeg-léeg gone ci def loo xam ne lii moom das ko war a yedd das ko war a léeg-léeg mu dem ba àgg ci ñu war koo duma sax waaye lu gën a bari ci mag ñi duñ xam fan lañ koy defee dangay gis koo xam ne sax léeg-léeg aw gan la am aw gan gan ñu ñëw toog ngay gëdd gone yi ak di leen xas wala sax ba àgg ci di leen dóor loolu léeg-léeg li muy joxe mooy gan ñi dañuy yëg ne ci suñ dikk yéen fi dikk ci la sawaru xas yi muy wax gone yi di leen léebu nangam nangam nun ñii la ci jublu léeg-léeg loolu la ñuy yëg dóor gi dañuy yëg ne xolam moo xat ci ñëw gi ñu ñëw ba toog lu tax mu jàpp gone di ko dóor ci suñ kanam te loolu am na lor ju muy lor gone gi mooy yaa ngi koy toroxal ci kanam ñoo xam ne ay jaambur lañ moo xam ci yeraange la moo xam ci jëf la muy dóor kon loolu lu mat a wattandiku la beneen bi ci des mooy wàllu dóor gone yonente bi sallallahu alayhi wa moo wax ne su demee ba am fukki at su lànkee bañ a julli kooku sañ ngeen koo dóor waaye waxul lool rek yam ci waaye daf ne wattandiku leen xar kanam fattaqul wajha na ngeen wattandiku kanam ak lépp lu ko jege ci xeetu dóor gone na ngeen wattandiku itam di dóor fenn rek maanaam jàpp benn place rek di dóor di dóor di dóor ci gone kooku du xalaat te dóor am na lor ju rey joo xam ne dana ko indi moo tax dañuy wax ne mooy la mujj ci saafara ki ñuy dem ba di ko dóor mooy koo xam ne jéem nañoo jëflante moom yëpp bunt yëpp sakk na ba bunt amatul ñu ne kooku la ñuy dóor léegi parce que nit ki jamono ji mu demee bay dóor moo xam yëg na ko wala yëgu ko waaye xale bi yëg na ni kii ay pexeem jeex na xale bi moom li ne ci xolam mooy kii pexeem jeex na su amoon leneen lu mu def lu dul dóor kon dana ko def ginnaaw ay pexeem jeex na nag tàmbali buntu bu yàbb la moom agsi na buntu tàmbali laa yàpp kooku agsi na ñu bari dañuy juum ci fànnu teel a dóor gone lu mu wax rek nga daal di gaaw dóor kooku bu yàggee say dóor duutu ko teg fenn moom bàyyi lay yemale waxi keneen sax booy ëpp importance yeneen yi ci des ay njuumte yoo xam ne boo jigéen ñi danañ ko faral di juum mooy doom ji def njuumte wala mu wax ko lu mel noonu nga def bu sa papa ñëwee wala bu diw sàngam ñëwee kooku day daal di yëg ne yow mën a la too ko dara kon léegi comme yaa ngi wax ñeneen ñoo naan ko suñ dikkee danañ la def nangam kon li muy mooy yow kon mënatoo dara léegi su ñu génnee rek lu ko neex ci lay nekk bañ ne ko sa papa ñëw na mu daal di réglé waat bu demaatee mu nekkaat ci loolu kooku baaxul contradiction lay indi ci dundu gone gi dañ ko war a yëgal ne ko tëwoo ma ne sa mën naa nangam mën naa nangam ñu ko teel dellu ci bàyyi tomb boobu nga xam ne moom lay mujj kon Omar ibn Xattaab radiyallahu taala anhu wax ko euh, ñu jële ko ci moom dañ euh, mi ngi ci téere bu ñuy wax euh, muxaadaraatu al mu wa muxaawaraatu shuara wa bulaga dañu wax ne jële nañ ci Omar ibn Xataab mu ne laa'ib ibnaka sab'an summa addibhu sab'an summa saaxibhu sab'an summa da'hu fa sha'nuhu sha'nu rijaal mu ne sa doom fool ak moom juróom-ñaari at yu njëkk yi fool ak moom juróom-ñaari at yu njëkk yi kon juróom-ñaari at yoo xam ne xale bi da ngaa war a fo ak moom lu néew a néew nag nit ñi di ko def mooy fo ak seen i doom ñëw bokk ak ñoom di fo di ree di def ñuy defal nangam defal nangam yor ci ay fowukaayam te lool lu am njëriñ ci xale bi la moo xam papaam la moo xam yaayam la di ko taxaw di foog moom di ko jàngal nan lay fooyeeg nan lay utiliser ay fowukaayam nan la koy jëfandikoo kon fool ak sa doom juróom-ñaari at yu jëkk yi li ci des mu ne àndal ak moom juróom-ñaari at yi ci tegu kon soo am juróom-ñaari génn di ko yóbbaale di ànd di dem di delsi kooku lu am solo ci moom Euh, bi ci tegu sax mooy su ma addibu sabaan juróom-ñaari at yi tegu ci juróom-ñaari jëkk yi daf ne na ko tàmbalee yar na ko yar yeneen juróom-ñaari at kon fool ak moom juróom-ñaari at yar ko juróom at ànd moom juróom at mu daal doon ñaata at ñaar fukki at ak benn na su boobaa nag su fekkee def nga lii nee na moo góor ñëpp a yem léegi agsi na jàpp nga ci loxoom ba agsi na fool moom juróom at yu jëkk yi kon bu loolu jàllee tàmbali nag di ko yar yar bi foofu la gën a tare mooy bi mu xasee am sept ans di ko jubbanti di ko yar di ko wax dafa lii bàyyi lii bàyyi lii ba mu am quatorze ans boo amee fukki at ak ñeent yi nag nga tàmbali di ànd ak moom nag di ko yóbbu muy gis nit ñi di gis yeneen béréb yi di jaxasoo nit ñi fu mu juumee nga ne ko ah tey kat li nga wax ni nga nuyoo kee njuumte la ni nga wax ak kii njuumte la àndandoo boobu su demee ba mu àgg ci ñaar fukki at yi ak benn su boobaa jeex na su boobaa nee na bàyyi ko te xamal ne benn waay la ci gaa yi su boobaa moom aski na moom ñëpp yam léegi kon loolu daal euh, ay yu bare bari la yoo xam ne lii lenn la ci euh, waxtaan wi ëpp na loolu fuuf waaye noo ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala liñ ci jot wax ak us néew euh, mu defal ñu ci tawfiq ba lépp loo xam ne luñ ci dégg lu am njariñ la ñu mën koo jariñoo bu soobee yàlla yàqu kii bi danañ ko jox mbokk yi ñu ñu toppatoo ko jéem ko tosaare ci anam bi bu laajee tekki ko ci làkku tubaab itam ñu tekki ko ci làkku tubaab tosaare ko incha allah mënees ci jëriñu ndax gis nañ ne tomb bi yar moom ci yar tomb yi nga xam ne aajowoo nañ ko lool ci sun jamono ci la bokk wallahu alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain وجعل ما قدم لنا في ميزان حسناته وما لا ينفع مال ولا بنون الا نسال الله بقلب سليم. امين. ñu ngi gërëm suñu Cheikh Dr Mouhamed Abdallah Lo ci waxtaan am solo yi nga ko muy am solo lool nga xam ni dee su ko dënk waaye li ñuy dénk mbokk yi mooy loola nga xam ni am na mbokk mu ko dénkaane ci ni jullit bu nekk war naa am maktab ci kër maanaam maktaba ci këram band bi ci bandi maktaba yi la war a bokk bu ñu am denc ko di ko déglu di ko jëriñoo kon bu ko defee incha allah ñu ngi ubbi beneen bunt muy buntub laaj ñuy ñaan mbokk yi laaj yi tënku ci bunt bi ndax amaan na kon mu doole leeral lu xam ni lëmoon nañ ci xel bu ko defee ñëpp dal di jëriñu ñu ngi am fanweeri minute walla ñaar fukki minute kon ñu tënk wax ci loolu bismillah bu amee ab laaj ni ndax daal mënuñu woon a am ab dikk moo xam lu luy gaaw lay doon wala lu yéex ci ñu mën koo ilaajaat beneen yoon bu gën a yaatu ok war naa a nekk ndax euh, su fekkee ne waxtaan yi ni ñu koy faral di seetloo mooy am na ci yoo xam ne léeg-léeg euh, yoor yoor lay doon jëm subaar yooyu seen waxtu mooy gën a yaatu waaye ñaari waxtaan yi nga xam ne day tàmbali takkusaan jëm timis moom gën ngaa bari ñaari waxtu rek lay doon su fekkee am nañ beneen waxtaan boo xam ne bu gën a yaatu boobu la buñ ko organiser rek incha allah ñu mën a seet fan la mën a jaar mën ko ci yaatal bu baax a baax ndax surtout bu laajee it def ko ci kaset manis naa manis na koo def ci kaset lépp tasaare ko incha mu jàpp naa ne genn wàll gi moo ñëw léegi mat na genn léegi mat na genn wàll gi dem ci commencement waxtaane ñu déggee wax yi euh, masalan fi ñuy ko tànnee ndeyu xale bi foofu dégg nañ ci koo xam ne bi muy tànn ndeyu xale bi day seet borom diina borom diina lañ fay boobu rek moo ngi tànn quoi te boo xoolee suñu askan maanaam suñu xeet Sénégal maanaam euh, cos euh, yooyu lañ koy tuddee booy yi daanaka day dem ba dóor ñu may tànn soxna soo xam ne bokk nañ askan dëgg dëgg par exemple bu dee tey da nga nekk wuude naa woon tànn koo xam ne dafa nekk ay géw wala géer loolu day nekk jafe-jafe boo xam ne day feeñ problème bi dañ jàpp ne mooy duut sa imaan doomu moo lay yóbbu moo lay moo lay yóbbaale hmm. boo jéem boo noonu da nga naan suma fit laay demee wala kii laay demee ba takk soxna boo xam ne bokk leen comme noonu hmm. ëllëg say doom yow mën nañu am jafe-jafe hmm. yaa ngi ñu ngi xool itam ci biir wax ji am na taabiin boo xam ne bi ñuy wax ne sama doom yéen dimbale naa ngeen judd ak bi ngeen juddoo bi nga ko laajee dana ne seen yi kenn mënu koo xas xaste bi des fois mën na nekk ci euh, sa doom yi day par exemple boo leen tàkkaloon yaay joo xam ne bokk nañ askan par exemple yow nga nekk géer takk koo xam ne géwél la dañ koy xasee ne ko say doom say doom dañ ne ko seen yaay géwél la ilaaka loolu lay métti si ñoom ndax xaste boobu nit mën na koo daw ba tax mu gis koo xam ne borom diina la comme yaakaar si di moom diina la ku am yaakaar la ba ñàkk def ko ñàkk ko yaayu doomu ëllëg ndax doo xat sawa wala day jàpp rek ne islam ni mu sotul mooy diina mu tàgg ko ndax loola laaj bi xaw na jaxasoo xaw na alhamdulilah euh, léeg-léeg euh, li ñuy faral di jaawale léeg-léeg mooy diggante li nga xam ne mooy li am ak li nga xam ne mooy li war a am maanaam dafa am loo xam ne dañ koy tudde waaqe muy réalité boo xam ne société bi dañ koy dund waaye fekk réalité boobu doonut li war a am waaye nag dafa am léegi lu am te wër wërta am nan lañ koy def ndax dañuy continuer di ko tasaare ci kaw ne moom kat moo fi nekk wala dañuy jéem a defi pexe pour loola jóg fi defe naa ne kuy islaax muy kuy réparer dangay ngay jiima fexe ba loola jóg fi sa kem kàttan donte da ko fi tàmbale sa bopp yow wàllu li nga xam ne moom lañuy ñuy dund ci wàllu askan ak xeebante ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko boole ci jikkoy ceddo yi daf ne am na yenti yëf yoo xam ne ci jikkoy ceddo yi lañ bokk te yooyu sama xeet wi dañ koy melokaanoo mu boole ca xeeb askanu nit ak damoo saw askan yow ñaar yooyu ci lañ bokk kon loolu doonut lu war a am waaye nag mooy li am li am te wër ta am nag duñ continuer di ko encouragé pour mu continuer di am waaye dañu jéem a defi pexe jéem a xalaat lan moo ko fi jëlee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu waxee ne nit ñi danañ tànn nit ki ngir askanam danañ tànn nit ngir lii danañ tànn nit ngir lii waaye nag yow góorgóorlul ba tànn borom diine kooku orientation la boo xam ne ci biir cadre boobu lay dugg mooy nit ñi kat lee la ñuy def waaye yow fexeel ba def lii kon kooku mooy li nekk réalité bul ko jël ne rek mooy réalité moo fi mën a nekk li ñu tuddee tabrirul waaqia seet mbir mi jéem naa jéem xam naa ne du fi gaaw a jóge wala mënu fee jóge ñu ne kon nun ñëpp nañ ci sóobu rek far benn yoon déedéet yow kay ginnaaw yàlla baaxal na ba xam nga ne daf fee war a jóge fexeel ba yow li nga man rek nga jëlee ko fi soo jógee keneen jéem keneen jéem bu yàggee mu tasaaroo wala askan yooyu ci wàllu histoire defe naa ni sax am na sax conférence boo xam ne ci lu mel noonu la jëm ab kasetam mi ngi fi lenn lu ci nekk boo ko toppee ba mu jeex sàkk doonut lu tegu fenn lu dul dara la doomu aadama yépp ay doomi aadama lañ ñu baax lañ ci seen wàllu askan ci aadama lañ dellu ci awa lañ dellu loolu moom kenn mun ko mun nit ku wàcce feneen amut doomu aadama joo xam daa wàcce feneen fu bokkul ak aadama ak aw loolu amu fi mu des nag yeneen yi dox ci diggante bi nga xam ne aada yeeg cosaan yeeg yu mel noonu ñoo ko fi indi yooyu wërta mën a dem ba àgg ci suufeel li nga xam ne diine da koo jàngale moom diine moom lim jàngale mooy inna akramakum indallahi attaakum ki gën a tedd ci yéen fa yàlla de xaw ma nag fi yéen waaye fa yàlla moom mooy ki gën a ragal yàlla ci yéen leneen li ci des mooy nit ña danañ takk pour alal nit ña danañ takk pour taar nit ña danañ takk pour askan waaye takkal yow pour diine kooku yonente bi sallallahu alayhi ko noonu la ñuy def mu des nag yi nga xam ne nit ñi danañ ko ni ŋàññi nit ndax loolu mooy ŋàññi wi abul aswad du ali jublu wala déet ndax bi muy wax ak doom yi comme ni ko mbokk mi waxee léegi dana ko takkal naa leen yaay joo xam ne kenn du leen ko ŋàññee kenn du leen ko ŋàññee ndax loolu daf ci jublu ne yaay joo xam ne du